jaay ngorom gedd tariqaam dem ci ay tappaleeki caaxaan parce que dañ koy neexal mburaakeek pétrole ak suusal muy mëq yow ak ñi mel ne yow ak ñi am pas-pas boobu nga amee yaak muawi yaak seeni taalibe yéen ñëpp laanatullahi aleykum wasalaam